incha allah ñu ngi war a jël aaya ñaar fukk ak ñett ci suratu yusuf ci sunu boroom subhanahu wa taala di waxe ni wa raawadatuhu lati huwa fi baytiha an nafsi aaya 23 ci suratu yusuf إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sun boroom subhanahu wa ta'ala mu ne wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi noonu la ko sàkkoo ka nga xam ni ma nga ca këram ga ci bakkanam wa ghallaqatil abwaab mu daldi tëj bunt ya wa qaalat hayta lak mu daldi ne ko ay ca ñëwal ñu ne xëyta laka du langue arab doonte ne mi ngi firi halumma mooy ay ca ñëwal ci man qaala maazallah mu ne ko maa ngi sàkku mucc ci yàlla innahu rabbi ahsana maswaaya sa jëkkër de sama sang la rafetal na sama wàccuwaay innahu la yuflihu zalimun li am day mooy du texe mukk tooñkat yi walaqad hëmmat bihi xemme moon na lool jëm ci moom mu yusuf wa hëmma biha moom it xemme moon na jëm ca ndaw sa lawla an raa burhaan rabbi su dul woon ne daa gis kawtéef bu bawoo ci boroomam kazalika li nasrifa anhu suu wal fahsha mi ngi noonu ngiree ñu daldi jooye la ci moom wëlbati soril ci moom la nga xam ne ñaawteef la la nga xam ne lépp lu bon la ak ay ñaawteef innahu min ibadina al muxlasin moom daa bokkoon ca sunu jaam yi nga xam ne dañ leen a tànn wastabaqal baab noonu lañ jëkkante bunt ba wa qaddat xamiisahu min dubur mu xotti xamiisa ba mu soloon ca gannaawam wa alfa ya sayyidaha la dal baab ñu daal di dajeeg sangu ndaw sa ca bunt ba qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suu mu ne ko lan mooy payu ki bëgg ci sa njaboot lu bon illaa an yusjana xanaa kay ñu tëj ko rek aw azabun alim wala ñu mbugal ko mbugal boo xam ni mbugal bu tar la mi ngi noonu mbokk julit ñu ngi daje tey ci sunu ñaareelu daje ci xissa bi nga xam ni sunu borom melal ne ko ni mooy nettali bi gën a rafet boo nar a dégg muy li tubaab yi di wax deuxième épisode gisoon nañu yusufa alayhi salaam ba mu juddoo ca kër baayam géntoon na ne ne jant bi ak weer wi ak fukki biddiw ak benn ñu ngi koy sujuutal baayam gis na ni kii mooy nar a nekk yonent bi koy donn mu bëgg ko bëggeel goo xam ne jéggi na dayoo loolu taxoon na ba doomu baayam yi iñaane ko jël ko ne nañ ko rey ba mujj ñu ne sax nañ ko sànn ca teen ba rek buñ ko fi jëlee bu ko defee dootuñu ko gisati noonu it la amee am na jëgg ju ko ñëw génn ca teen ba ñu yóbbu ko ca marché ba jaay ko fa bañ ko jaayee kii di premier ministre bu Égypte daal di koy jënd ñëw ci kër gi ne soxnaam kii day dama bëgg nga teral ko mën na am mu jëriñ ñu wala ñu jàpp ko muy sax sunu doom benn yoon loolu la ñu mujje woon léegi nag yusufa alayhi salaam yàlla defoon na ci moom taar boo xam ni jéggi na dayoo ndaw si ba muy xale bu ko xoolal bëti doom it bi mu demee ba nekk waxambaane commencé na ko xool beneen bët bu dul bëtu doom léegi di sàkku yuusufa ci façon bu nekk raawadathu mooy mi ngi ko doon sàkku ca ay waxam ca lekk gam koy jox ca na muy defee ci kanamam ak jigéen nam bëri ay pexe doonte ne yooyu yépp yuusufa wuyuwu ko ci ba benn bis nag mu daal di bàyyi ba appartement yi wéet mu daal di woo yusufa alayhi salaam daal di dem tëj bunt ya man naam tëj na buntu appartement ba buntu salon ba buntu chambre à coucher ba daal di nag summee ko ci kanamu yusuf ne ko ay ci ñëwal ci man yusufa alayhi salaam daal di na ko ah maa ngi ñaan yàlla musal ma ci lu mel noonu ndax man sa borom kër mooy sama boroom ca loolu daganoon na ci jamono yu jëkk sa sang bi la moom nga naan ko rabbi gis nga dana bari loolu luñ koy jàng ci saar bi comme ba yusufa di nettali ka buur ba yónni woon na ko irja ila rabbik fasalu ma ma balu niswatul lati qata'na aydiyahunna loolee kon mu ne ko sama boroom la rafetal na sama wàccuwaay ci kër gi jàpp ma comme doomam ma wëlbatiku nag di njaaloo ak soxnaam ah loolu duma ko def loolu su ma ko defee dinaa tooñ ca ab tooñkat du texe mukk loolu it muy ndaw julit bankal sa baaraam ci bind boobu xamal ne tooñkat du texe mukk waaye it xoolal lan mooy danger wéet góor ak jigéen aussi te la nga xamee ne moom la mën a jur looloo tax ba bari na ay danger yoo xam ne dal nañu léegi danger bi jëkk mooy danger ay bon masalan benn waay ngi nii nekk ci kër appartement yu xat am bon boo xam ne mi ngi nekk ci digg jànqam lu leen neex la ñuy solo léeg-léeg madame tukki léeg-léeg madame dem marché léeg-léeg madame feebar nekk hôpital bon bi mooy taxawe lépp lu madame di taxawee musiba munta passé loolu léegi-léegi nga gis benn waay boo xam ne appartement ba mu dëkk ma nga jël ponkol moo xam ne xamul fu mu juddoo fu mu yaroo luy jukkoom ñëw dëkkal ko sa biir kër loolee muy jaxasoog say doom yu jigéen di jaxasoog say soxna loolee da ngay gis ne alal jëru ko kenn xamul lan la mën a jur ci ay musiba loole la sunu borom nettali ne ndaw si noonu la ko sàkkoo ba tëj bunt yi mu ne ko nag man loolu lu ma ko def ndax tooñkat du texe doonte ne ni sunu borom mu ni ndaw si xemme moon na lool jëm ca yuusufa yuusufa it xemme moon na jëm ci moom doonte ne am na yenn borom xam-xam ñu ne ay hëmm biha ay hëmm bi darbiha xame man na pour dóor ko waaye boo gisee li gën a dëppoog alquran mooy yusufa en tant que nit xame mon na jëm ci ndaw si célibataire la ndaw si da ngay gis ne jabaru buur la ak taaram ak yépp ci ni yàlla bind doomu aadama xemmem na jëm ci moom waaye sunu borom yàlla won ko benn kawtéef mufassiruna yi wax nañ ci lu bari ala kulli xaal am na daal mandarga bu mu gis boo xam ne yee na ko ci loolee nga xam ne moom la naroon def te it mbokk ku nekk di war a moytu ndax doomu aadama léeg-léeg am na benn quelques minutes comme niñ ko fi doon waxee am na benn tubaab bu ci benn benn livre tuddee ko les trois minutes du diable am na koo xam ne ci quelques minutes rek ngay defee musiba rey sa jabar rey sa doom wala ah violé kenn njaaloog moom automatiquement boo ci pare rek da ngay mel ni ku génn ci ay gént yuusufa it xame moon na ndaw si mais gis na benn kawtiif bu ko yee mu génn ci gént yooyee gis ngeen daadi moom la sunu borom ni ngiree ñu dindi ci moom ay ñaawteef ndax bokkoon na ci sunu jaam yi ñu tànn loolu it mbokk mi ngi noonu yendawal julit bu dee ne góor góor lu nga jëm ci sa borom di jaamu yàlla di toroxlul sa borom situation lu mu jafe jafe jafe jafe yàlla dala cay génne kenn du la piège du doon jigéen du doon xaalis du doon menace àdduna amul lenn loo xam ne ya dana la yàqal maadaama da nga doon ku dëggu sa digganteeg sa borom sunu borom mu ne nekkoon na sunu jaam yi ñu tànn moo tax ñun ñoo ko fegal loolu moom la yonente bi alayhi salaam di wax ni amul benn waay bu jigéen di woo ci place boo xam ne ñoom rek a fa wéet ndaw sa rafet nekk borom famille mu daal di koy woo ci boppam mu ne ko man de ragal naa yàlla lu dul dana bokk ci juróom-ñaar ña yàlla di keral ci arshu rahman yowmal qiyama yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñee loolu kon lu tax mooy mbir bu jafe la moo tax nga am mérito yowmal qiyam ñu lay keral ci keru arsh sunu borom yàlla subhanahu wa taala nag mu ne nii la ñu fege ci moom ay ñaawteef ñii la ñuy fege ci moom ah lépp lu bon muy wane it ne kon nañ góorgóorlu suñu kemtaleel kattan ba ñu jege njaaloo léegi yusufa bi mu ximmee rek départ daw ubbi bunt bi daw ubbi bunt bi daw ndaw si topp ci gannaawam bim ne ñëkk ci xamisa bi yusufa fiqumu xotti ko mbum mi wadd kon yusufa it def na presque yaramu neen naka ñu ubbi rek léegi fekk borom kër gaa ngi dugg si ci kër gi rek ndaw si daal di koy daal di tàcc na ko nag lii de yaa ci yem nag lii moom yaa ci yem lan mooy payu ki nga xam ne mi ngi ñëw nag fekk sa jabar ci biir appartement di ko sàkku gis ngeen gaa yi lii di pexem jigéen yal na yàlla musal ñu ci dégg nga ah loolu xanaa daal lu dul ne nañ ko tëj wala mbugal ma tar ñu ne ndaw si waxul rey ndax rey Yuusuf moom kenn du ko def ndax bëgg na ko bëggal goo xam ne xëy di rëcc na ko tey mais jàppale na ëllëg dana ko mas a jot waxul it na nga ko jaay doonte ne jaamu buur bi la woon waaye daal nañ ko tëj ci kaso yi nga xam ne ci palais bi la nekkoon wala ñu bëggal ko mbugal mu tar rek waaye bu kenn rey bu kenn jaay gis ngeen ah yusufa it daa dina ko déedéet ay sama sang moom wala boog kon loolu may la nga xamee ni nii ah moom la sunu borom yàlla wax doonte na la borom bi wax ne wa alfa ya sayidaha la dal baab bokk na lu borom xam-xam yi di sukkandikoo ci ne jëkkër moom mooy sangu soxnaam et que soxna dafa war a liggéeyal jëkkëram la nga gis ay yenn intellectuels yi nga xam ne naam ay jurit lañu waaye dañuy xool la leen arrangé ci lislaam ñu sukkandiku ca man mii mas nañu ci indil benn débat bu demee noonu ñu ne amul fenn fu yàlla wax naan alors góor dafa war a toog jigéen di ko liggéeyal loolee mbokk da ngay gis ne lay maaruuf ñu xam ko ci lislaam te sunu borom wax ko moo di ne jëkkër mooy sangu soxnaam looloo tax war na koo toggal war na koo fóotal war na ko nangul yonente bi alayhi salaam dem ba na sax su doon danaa digal kenn boo gisee kenn na ko sujuutal dama naan yow soxna foo gisa sa jëkkër na nga ko sujuutal ngiree aq bi nga xam ne yoral nga ko kon daje nañoo sangu ndaw sa ay jëkkër ja ca bunt ba ca la ndaw sa tàccoo daa di wax loolee nga xam ne nii wax na ko ci sang bu tedd boobu di yusuf alayhi salaam
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
sunu borom jalla wa ala mu ne yusufa daal di tontu qaala hiya raawadatni an nafsi mu ne déedéet soxna si kay moo ma sàkku ci sama bakkan wa shahida shahidun min ahliha noon la seede aji seede ca fami ndaw sa in kaana xamiisuhu qudda min qubul su dee ne day xamiisa bi dañ koo xottee ca kanam fa sadaqat ndaw si wax na dëgg wa huwa min alkaazibin ca kon yuusufa mii ci fenkat yi la bokk wa in kaana xamiisuhu qudda min dubur bu dee ne nag xamiisa bi dañ koo xottee ca gannaaw fa kazabat kon ndaw si fen na wa huwa min alsaadiqin ca yuusufa kon dana nekk ci ñu dëggu falamma ra'a xamiisahu qudda min dubur ba jëkkër ja gisee ne xami sabakan ma nga xottee xottee nañ ko ca gannaaw qaala innahu min kaydikunna mu ne lii dee ci seeni pexe la yéen jigéen inna kaydakunna azim seeni pexe lu màgg la yuusufu aarid an haza ay yuusuf du mooyul ci jëf ji wastaghfiri li zanbik ay yow soxna si jéggulul say bakkaar innaki kunti min alxaatiin yow day bokkoon nga ci ña nga xam ne dañoo juum ay dañoo def ay bakkaar wa qaala niswatun fi lmadina nii la waxee nag jigéen ña nekk ca dëkk ba imraatul azizu turaawidu fataha an nafsi kii di soxna premier ministre bi day ma ngay sàkkoo booyam ba nekk ca kër ga ci bakkanam qad shagafaha hubba moom day yiir na ko ca la nga xam ne mooy mbëggeel mooy dem na ba xilaasu qalbi la nga xam ne mooy la muur xolam ba sax mbëggeelu yuusufa ba jaxasono ak moom inna la naraha fi dalalin mubin kii de waaye gis nañ ko mi ngi nekk ci réer gu màgg a màgg mi ngi noonu mbokk da ngay gis ne doomu aadama itamit foo toll war ngay jéem a défendre sa bopp léeg-léeg nga dégg ku naan sama yoon nekku ci la yàlla xam doy na kaza wa kaza déedéet jullit da ngay teggil sa bopp tuuma ca bañu dem ci place yoo xam ne it dañ lay fay mën a tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci jàkka bi di itikaaf benn soxnaam bu ñuy wax safiya ñëw seet si ko bi muy dem mu koy gunge ci lëndëm gi am ñaari jeune waa ansaar ñi ngi toogoon ci jàkka ji ñu gis yonent bi rek jóg di dem mu ne leen kaay leen ñu ñëw mu ne leen kii sama soxna la safiya ñu ne ko ah yow mi yàlla yónni nu ñuy jort ci yow lu bon mu ne inna shaytana yajri fi ibn adama majra dam shaytaane day daw ci doomu aadama ni deret di dawe parce que yow tey jii da ngay xool boo romboon ci benn place nga gis ne kat sëriñ càmm moo toog fii mi ngi toog ak benn jigéen nga romb dégg baatu sëñ càmm xam ko ca xamoo ndaw si mu toogal loolee du jur musiba ah kay mën na jur musiba loolee di mbir boo xamee ne nii bu jara bàyyi xel la looloo taxit yuusufa ne borom kër gi déedéet li mu wax amul moom mii moo ma doon sàkku ci sama bopp ah léegi nag coow li na kurru ñëw na ci xadis yonent bi alei salatu wasalaam ne yàlla wax noona ñeenti xale ci seen berso bokk na ca shahid bi ñuy wax nga xam ni kenn ci nijaayi ndaw si moo juróon benn liir boo xam ne jamono jooju mi ngi nàmp yàlla daa di waxloo xale bi ne yomb na xool leen xamiisa bi rek su xotteekoo ci gannaaw da ngay gis ne ah bu xotteekoo ci kanam kon yuusufa moo doon ñëw ci ndaw si ndaw si di ko repousser ba tax xamiisa bi xotteekoo ci kanam kon nga xam ne li ndaw si wax dëgg la yuusufa li mu wax dara amu ci amma bu dee da ngeen gis ca gannaaw la xotteekoo loolu moom wóor na na kon ndaw see ko doon sàkk yuusufay daw mu xotte ko ca gannaaw loolee da ngay gis tamit borom xam-xam yi dañ koy jëfandikoo léeg-léeg ci atte mooy ay preuve yoo xam ne dañ koy gis xam ne lii même bu doonte ne fekk wuñ mbir mi it mais preuve yi ñu fi bàyyi day woñe ne lii kat ay jeexital mën na nekk ci lu ñu mën a condamné waa ji wala lu ñu ko mën a innocenté mi ngi noonu loolu da ngay gis ne bi nga xamee ne nii am na jëkkër ji dem yëkkati xamisa bi xool ko effectivement ca gannaaw la xottee ko ba ci suuf mu daal di wëlbati ko ci ndaw si daal di na ko lii day nekk na ci seeni pexe doonte ne waa ji daloon la am na nag mu fassiruna yi ne moom it fiirul woon dara waaye ala kulli xaal ku daloon la waxul sax ndaw si ne lii ci sa pexe la mais daf di lii ci seen pexe la yéen min kay di kon na yéen jigéen seeni pexe lu rëy la waa ji wax na ko yàlla nettali ñu ko muy wañe na mbokk pexe jigéen lu rëy la sunu borom nee na inna kayda shaytan kana daifa pexe sheytaani lu lompañ la ndax sheytaani bu ñëwee ci yow soo ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim rek ma daw bàyyi la waaye cey bu la yàlla nattoo jigéen ju bon mën na laa dugal ci musiba yi kenn xamul buñ la waxee dans l'histoire ana ñaata góor yoo xam ne jigéen moo leen daaneel dans l'histoire ana ñaata famille yoo xam ne jigéen moo ko tas ay diggante jë doom ak yaay yoo xam ne jigéen a ko yàq kenn xamul lu mu nu mu demee seen pexe lu rëy la ca mooy ña nga xam ne ñooy pexe ci ñoom donte ne yéemuñu am na ca ñoo xam ne nii ñu baax la duñu pexe abad duñu pexe lu bon abadan yal na yàlla boole ci suñuy jigéen waaye pexe jigéen loole lu rëy la loole bi nga xamee ni ni am na bokk na it lu ñuy dégg mbokk ñaareelu yoone ngi nii sunu borom dañuy wax xamisa yuusuf bi yoon bu njëkk ba mooy kañ mooy bañ jëlee xamisaam bi summi ko jox ko yonent yàlla yankuba am déet sotte ca deret ne ko kat sa doom ji tilli ga lekk na ko yankuba xool ko xam ne ñii dañuy wax dañuy fen kon na yankuba gise chemise ba mooy xamisa ba dara xotteeku ci rek la xam ne sama doom deewut yéen a am pexe bu ngeen pexe waaye sama doom koy deewut danaa muñ muñ gu rafet xamisa bi fii it moo sauvé yonent yàlla yuusufa ba sangam bi xam ne moom kat deful dara soxnaam si moo def musiba bi ñetteel ba dana ñëw ca fin saar ba xamisa boobu benn bubbam lay jël jox ko ay frère am ne leen dem leen sànni ko sama baay bu yanku ba jotee xamisa bi rek day génn ci gumba ga nga xam ne gumba woon na ko comme niñ ko nar a jàngee ci kanam insha allah léegi lii seeni pexe la ay yuusufa histoire bi jéem koo fàtte du mooyul ci li melal ne musu fee xew ay yow ndaw si jéggulul say bakkaar nekkoon nga ko juum tuubal nga jéggulu say bakkaar mi ngi noonu loole mooy la nga xamee ne moom la jëkkër jooju wax waaye nag mbokk ndekete yóota rajo kankan du waa ndakaaroo ko jiite affaire ba daal dem naa dem ba yegg ca lobs ak walfu grand place ak yooyu dem nañ ba mujj jigéeni dëkk bi yépp histoire ba dem na ba yegg ci ñoom foo dem rek moom la ñuy waxtaane ca mbokk tabia doomu aadama moo mel noonu doomu aadama yi li ñu bëgg rek mooy ay njaaxum loolu tax sunu journaux yi soo laajee ña nga xam ne ñooy professionnels ya ka xam dañ lay wax ne journaux yi wax lu sérieux tey jii buñ doon tiré cinq mille exemplaires ña nga xam ne ñooy wax njaaxum ya mën nañoo tiré ñoom vingt à trente mille exemplaires ndax nit ñi li leen itteel rek mooy njaaxum yooyu ñu ngi noonu barki démb bi rek am na benn rajo mi ngi wax nee na benn quartier ci géejawaay benn ponkol lañ fa jàpp mu yegg ci benn xale bu deux ans ñu nekk ci commentaire commentaire waaw mbokk julit benn ponkol ci géejawaay yegg na ci xale bu deux ans xamoo ponkol ba xamoo xale ba lan la la yitteel ban ci commentaire nang bu ko defee mayu liir nga journal bi gis nga liñ ci waxa ah liir nga gis nga liñ ci waxa loolu mbokk mooy suuxat xoli doomu aadama yi donte ne lu dangereux la mbokk julit gis nga ab xol day dund ni doomu aadama di dundi gis nga lekk gu baax gu normal ni muy defere sa jëmm lekk gu bon ni muy yàq sa jëmm noo nit la xol bi mel soo koy chargé ci ay histoire yu bon ay njaaxum ay viol ay loo xam ne amul bopp amul génn di ko suuxat sa xol gu dégg ba tëg da ngay mujj dem ba xol bi day mujj wow zikrullah dootu ci am place yàlla du ko tax a jooy ah tudd yàlla du ko tax a tiit loolee di mbir boo xam ne nañ ci góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax nañuy chargé sunu xol yi alquran hadis yonent bi ak histoire nit ñu baax ñi mbokk li mooy dundal xol waaye journaux yi départ nañ ba ñépp ña ngi koy waxee affaire bi it viré waat na viré waat na ba yegg si waat ci palais bi ba ndaw si it yéeg ne ndekete waa dëkk bi yépp moom la ñuy coow ñu ngi noonu loolu moo dalal suñu ay Aïcha radiyallahu anha lañ ko dóoraloon dem na di wër dëkk bi di wër dëkk bi ba wër dëkk bi ba dellusiwaat ci moom ndekete waa dëkk bi ñi ngi koy wax loo xam ne nii dara amu ca ba loolee tax ko feebar ba histoire ba na mujjee yéen ñëpp yàgg ngeen ko dégg ala kulli xaal ndaw si dégg na ñu ni jabaru premier ministre bi day ma ngay sàkk booyam ba nee nañ bëgg na ko bëggeel goo xam ne muur na xolam bi te yàllaa ñu koy netti di tamit loolu di mbir boo xam ne bari na daal suñu jeunes yi suñu jeunes yi da ngay gis koo xam ne danaan day bëgganteeg moroomam ña ngay jàng da ngay bëggante masalan ñu deme deme dem ba ku nekk sa moroom gënal la sa bopp léegi nag mën nañu dem ba war a sëy parents yi bañ ne yow diw duñ la may diw da lay jaral dogoog say parents da lay jaral lu nekk lu tax xad shagafaha hubba day deme dem ba bëggee lu waaja nga am ci moom wala yow waa ji bëggeel ba nga bëgg ci ndaw si da lay jaral nga dogoog sa ndey dogoog sa baay dogoog lépp moo lay gënal dogoog ndaw soose loolee di mbir boo xam ne jeunes yi war nañ ci def attention bu baax a baax a baax soxna yi tàcce na ñun daal gis nañ ne moom mi ngi ci réer goo xam ne réer gu màgg la waaye tamit doomu aadama bi war nga it bala nga condamné doo nit ki nga xool la nga koy condamné fan la jaar ba yegg foofu ndax ndaw jigéen ñi koy condamné ci kanam tuuti daañu gis ne ndikkate yooti wuruñu ko woon a condamné ñoom tamit ñu ngi noonu
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
sun borom jalla wa ala mu ne falamma sami'at bi makrihinna a soxna premier ministre ba zaliqa la tuddoon ba mu déggee pexe ba jigéen ñey fexe arsalat ilayhinna la yónnee ci ñoom invité leen waatadat lahunna muttakaa mu waajal leen loo xam ni dañ cay soonu donte ne arab dana koy waxit lekk ga ñuy daje di di ca lekk wa aatat kulla wahidatin minhunna sikina jox képp kenn ci ñoom benn paaka wa qaalat uxrij alayhinna wa qaalat uxrij alayhinna daa dina yuusufa génnal ci ñoom falamma ra'aynahu akbarna ba ko soxna yi gisee ñu màggal ko wa qatta'na aydiyahunna daa di dogote seen loxo ya wa qulna haasha lillah ñu ne subhanallah ma haza bashara kii day du nit kii day du nit in haza illa malakun karim kii day du dara lu dul malaaka bu tedd rek ndaw sa nag ni qaalat fa zalikunna lazi lumtunnani fiihi lii nag mooy la nga xam ne nekkoon ngeen di ma ca yedd walaqad raawatuhu an nafsihi fastasam maa ngi koy sakku ci bakkanam mu daal di sakku ak muccu wala in lam yafal ma amuruhu waaye bu deful li nga xam ne moom laa koy sant day la yusjananna dees na ko tëj ci kaso bi wala yakuna min asaxirin te dana bokk te ñuñ toroxal qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yaduunani ilayhi yuusufa ne ay yàlla dem tëdd ca kaso ba day moo ma gënal ca lañ may woo jëme ca wa illa tasrif anni kaydahunna su deene nag féewalewoo ak man seeni pexe day asbu ilayhinna danaa jëng jëm ci ñoom wa aku minal jahilin te danaa bokk ca gaa yu réer ya fastajaaba lahu rabbuhu noonu la ko wuyoo boroomam fa sarafa anhu kaydahunna mu daal di wëlbati ci moom seeni pexe innahu huwa samiul alim ndax sa borom yàlla muy aji dégg aji xam lépp mi ngi noonu mbokku information yi dellusi na ca pale ba ndaw si dégg ko ca la waajale benn kendal daa di yónni ay booyam ci jigéen ña nga xam ne mooy la classe bi nekkoon ci Égypte yépp mi ngi noonu jabaru ministre yaag gouverneur yaag ñoom ñépp mu woo leen bi ñu ñëwee mu wa deg teg leen ci loo xam ne dañ cay sóonu ñu nekk seeni coussin léegi nag ku nekk mu jox la loo xam ni dañ koy xolli mango la wala lu mu mën a doon ku ne mu jox la benn paaka bu ñaw bàyyi ba ku nekk tey sa fri bay waajo xolli rek mu daal dina yuusuf kaay bi yuusuf a génnee jigéen ñépp wëlbatiku na jàkk ci moom rek ñoom ñépp ñu darandoo seen gémmiñ subhanallah haasha lillah ca muy musuñoo gis nit ku mel nii fi ñuy waxee paaka yi ñu yoroon ku nekk yaa ngi dagg sa baaraam daggate nañ seen loxo yi yëguñu ci dara kii day du nit kii day malaaka bu tedd la ndaw si bàyyi leen ba ku nekk dagg loxoom léegi nag mu ne leen hey ñoom ñëpp ñu gestu mu ne leen waaw léegi xool leen ku nekk wi tax sa loxo xool ne loxo baa ngi nàcc mu ne leen waa mi ngi nii nag yéen benn bëccëg ngeen ko gis dagg seeni loxo yéen lii ngeen may yedde ci man mi dëkk ak moom ba muy ndaw ba léegi ah léegi nag mi ngi nii kii moo tax ma wëlbati sama xel wëlbatiku ci moom Yuusufa ngi taxaw mu ne nag léegi maa ngi koy sàkku ci boppam muy bañ waaye li ma koy sant bu ko deful daañ ko dugal ca kaso ba te dana bokk ci ñiñ toroxal mooy daañ yàq deram ne da doon violé te daañ ko tëj ci kaso bi te gis ngeen mbokk tamit jigéen na mu foore hmm? looloo tax heure buy ñaan président de la république boole ca ñaan mu am jabar ju baax ju am diine am déet gaa yi jigéen dafa am doole ci am réew jabara boo dafa am doole ci am réew ndax comme ñeme naa leen tudd di dégg ngeen bag boo am déet bag bu lu mu dugg di jigéen jàkko ci dugal am déet gis ngeen su ko defee kon loolu it ndaw si loolu la wax li ma koy sant bu ko deful daañ ko tëj ci kaso bi te it daañ ko toroxal lii bi nga xamee ni nii am na da ngeen di gis yusuf alayhi salaam moom day melul ni la nga xamee ni nii ivoirien boobu dana koy woy ca mag ñi daan yàgg déglu musique dégg ko waa jooju di wax naan ah ah quel malheur si je dis oui si je dis non ndax la femme de mon patron nee na naa ànd ak moom njaaloo si je dis oui danaa nax sama pa- sama patron si je dis non nee na dana patron mu dàq ma léegi nag qu'est-ce que je vais faire yaa ngi dégg waaw mais Youssouf moom hésité wul ci li muy def Youssouf alayhi salaam moom xa- laajul lu muy def moom def na rek borom bi ma dem tëdd ca kaso ba day moo ma gën a liñ may woo jëme ci te loolu ndawul julit ngalawaay def ko sa gànnaay moo di ne foo mën a toll faral ak yàlla xoolal fa ngërëmal yàlla nekk rek nga nga jaar fa ndax loolu day tax ñu génne la réew mi ñu dàq la ci service bi ñu tëj la ci kaso bi ngalla waaye toujours fexeel ànd ak ngërëmal yàlla toujours da ngay gis ne xéewal rek a ciy mujj am déet yusufa ba mu jógee pa kaso ba fan la jëm dafa delluwaat yor pale ba loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax waaye nag yusufa sukkandiku wul ci kattanam yàlla kasoo ma gënal de waaye nag yow lay dimmi ni ko soo fegul ci man seen pexe day danaa dal seen kaw te loolu it la julit war a gëm mbokk laa xawla wala quwata illa billah julit doo doyloo say pexe kàttanu yàlla rek ngay sàkku ngiree yàlla musal la yonent yépp noonu lañ meloon yaa ngi dégg ñoom yonent yàlla Shuayb ak ñu deme noonu yépp beneen seen xeet waxee ne da ngeen dellu si ci suñu yoon bi ñu bokk jaamu xërëm wala ñu génne leen seen suñ dëkk bi ana lu ñu wax duñu dellu mukk di jaamu xërëm xanaa lu dul lu neex yàlla loolu nga jullit nga war a xam doo wax danaa def dara mukk lu dul insha allah doo wax danaa bàyyi dara mukk lu dul insha allah moo tax yàlla day soo ma fegalul seeni pexe danaa jéng jëm ci ñoom te bu keroogee danaa nekk ci gaa yu réer te it mbokk al jëhl mooy def mooy sa borom jàlla wa ala ni ngi noonu mooy sa borom jàlla wa ala loolee ci jëhli yi gën a mag ca la bokk même bu doon tene ne yow am nga xam-xam bu doctorat sax am nga ko waaye say jëf yaa ngi mooy yàlla ak jahil nga gis ngeen moo tax mu ne kon damay bokk ci nga xam ne minal jahilin sunu borom yàlla daal di koy wuyu daal di tegg ci moom pexe jigéen ñooñee borom bi nag ni moom mi ngi nii mooy aji dégg te it mooy aji xam loolu it mbokk yusufa ñaanoon na doon sa directeur de service mu la menacé na doon booro la menacé na doon ku la mën a menacé ci kaw suuf nga la waay làqul ci yàlla mu teggil la loolee nga xam ne moom lay moom la lay menacé sa borom yàlla mooy aji dégg ñépp sa borom yàlla mooy aji xam lépp te ku muccal nga mucc yàlla na yàlla musul ñu àddina ak àllaaxira
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتي يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
sun borom jalla wa ala mu ne summa bada lahum gannaaw bala feeñ ñeel ña nga xam ne mooy nguur ga min baadi ma ra'awul ayat bañ gisee kawte fi rot yusufa yépp la yasjununnahu hatta hiin kii daal dañ ko tëj ba ci jëmi jamono wa daxala ma'ahu sijna fatayaan noonu la duggee ànd ak moom ca kaso ba ñaari booy ca ñu doon liggéey ca pale bu pale buur ba qaala ahaduhuma inni araani asiru xamra kenn ka ne man de maa ngi gis sama bopp ne maa ngi nal li nga xam ne mooy sangara wa qaala al axaru inni araani axmilu fawqa rasi xubza keneen ka ne man de maa ngi gis ne maa ngi yenn sama kaw bopp lii di mburu taakulu tayru minhu ah, ay picc nekk di lekk ci mburu moomee ay yow yusufa nabbi naa bi ta'wili xabaare ñu ca la nga xam ne muy firi gént googee inna naraaka min al muhsinin ñun day gis nañ la yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafetal qaala laa yatikuma ta'amun turzaqaani mu ne du leen dikkal mukk aw ñam boo xam ne dañ leen koy wërsëgal illa nabbatukuma bi ta'wili lu dul ne danaa leen xabaare ca lan muy firi gént googee qabla an yatiyakuma avant leen ñam bi di dikkal zalikuma mimma allamani rabbi loolu day nekk na ca la nga xam ne sama borom yàlla moo ma ko jàngal inni taraktu millata qawmin laa yuminuuna billah man dama bàyyi yoonu ay nit ñoo xam ne gëmuñu yàlla wa hum bil axirati hum kafirun te ñoom alaxira dañ ko weddi wattabaatu millata abayi ibra millata abayi ibrahima wa isxaqa wa yanqub daa di topp sama yoonu baay ya ibrahim ishaq yanqub ma kaana lana an nushrika billahi min shay'in yellul ci ñun ñuy bokkaale yàlla ci dara zalika min fadlillahi alayna wa ala nnas lii nag ci ngëneelu yàlla la ci ñun ak ci nit ñi walakin aksara nnas la yashkurun waaye li ëpp ci doomu aadama yi ñoom dañu bokk ci ñiy sant seen boroom mi ngi noonu mbokk ñi nga xamee ni nii ñooy kilifa yi jiite réew ma ku nekk ci ñoom sa soxna ni bis na ca kër ga ma nga ma nga takk loxo ba ndax dañ koo dagg ca kër premier ministre ba gëstu nañu ba gis ne li tax lii am mooy bañ jàkkaarloo ak Yuusufa yéegoon na nit histoire ba premier ministre bi soxna premier ministre bi defoon ci lii bi mu amee ñu ne kii nag léegi nekk na benn danger public il faut ñu tëj ko ci kaso bi ba ci jëmmi jamono ba nga xamee ni wax ji dana sedd loolee fitne bi dana wàññeeku ñu jàpp yuusufa ca kaso ba daal di koy tëj biñ koy tëj ci kaso bi fekkoon na it jour boobu buur bi tëdd feebar bi ko médecin yi xoolee ndekete buur bi dañ koo empoisonné léegi nag ñu jàpp ki nga xam ne moo ko doon defaral mburu mi mu lekk ak ki nga xam ne moo ko defaraloon sàngara bi mu naan ne fii rek la mën a jóge imma ci lekk bi imma ci naan bi en attendant ñuy xool jàpp leen ñoom ñaar ñëpp tëj ci kaso bi ñëw yusufa ñu duggandoo ci kaso bi même jour bi ñu nekkee ci kaso bi gis nañu fa nekk nañu fa ak yusufa yusufa alayhi salaam yaram ba tegginam ba comportement bu rafet ba mu nekkoon ak waa kaso ba yiim ne leen loolu it muy wane ne mbokk ab jullit foo mën a nekk da nga fa war a nekk jaamu yàlla bu exemplaire jaamu yàlla bu baax hôpital bala kaso bala bitim réew la fu mu mën a doon léegi ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca palais royal bi daa di gént bi ñu géntee gént gi jaaxal leen ñu ne kii daal yusufa mii normalement ni mu mel war naa mën a xam suñu gént gi lu muy firi daa di ñëw ci yusufa alayhi salaam kenn ki na ko waaw man daal dama gént biig maa ngi nekk ci palais bi di pressé raisin di nga xam ne ci lay defarele buur bi sangara bu mu naan keneen ki ne ko man dama gént maa ngi yenu benn boolu mburu ay pëcc nekk ci kaw di lekk ci mburu mi léegi ne dañoo bëgg ngi firil ñu gént googu lu muy doon ndax ñun gis nañ la yow yaa ngi bokk ci ñuy rafetal fekk ne yusufa ba ba mu duggee ñoom ca kaso bi yépp mi ngi wut occasion bu mu leen waare amugu ko woon léegi nag occasion bi présenté wu na te loolu it ndawal julit diglu lu baax ak tere lu bon lu war la da'wa doomu aadama woo ko ci lislaam lu war la waaye sunu borom dani ah fad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana nang ko jaare ci hikma il faut nga xool ndax waxtu bi jot na il faut nga xool ndax situation bi permettre na loolu il faut nga xool ndax yow yee ngi ci wax ko am keneen a gën a yee ci wax ko loolu moo tax ñii biñ biñ ñëwee ci yusufa woon ko ne yow wóolu nañ la gis nañ yow ko baax nga yusufa nag am occasion mën a wax ak ñoom mu ne leen ah loolu ngeen gént ñu ne waaw mu ne ah léegi xaar leen gis nga amul ñam bu leen di dikkal da doon ci suba la woon mu ne leen añ bi balaa añ bee ñëw dinaa leen wax lan la gént gi di firi du ñu indi añ bi mukk te waxuma leen seen gént li muy firi waaye daal di occasion wu daal di ne gis nga man mii boo gisee ma man loolu man sama borom moo ma jàngal nu muy firi ay gént ndax man dama dummóoyu ci bépp xeet boo xam ni gëmuñu yàlla ca mbokk xeet bu gëmul yàlla daanaka mi ngi commencé suñu siècle bi suñu siècle bi la communiste yi russe yi ak chinois yi bon yi daa di ne yàlla amul hasard moo créé asamaan ak suuf waaye mboolem xeet yi jiitu woon gëmoon nañu yàlla ne moo bind asamaan yi ak suuf kon lan la ñuy firi laa yuminuuna billah ay xeet boo xam ne wéeti lu ñu yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax sunu borom di dox laa yuminuun waaye mboole mi xeet da ngay gis ne gëmoon nañu yàlla mi nga xam ne mooy aji bind ji loolee kon yusuf alayhi salaam ne weddi naa dumuyu naa bàyyi naa bépp xeet boo xam ne gëmuñu yàlla ba pare allaaxira ñu weddi ko loolu moom yàgg na ci kaw suuf weddi allaaxira moom yàgg na ci kaw suuf depuis yeneen ci yàlla nuux ba suñ jamono yi tey ñi weddi àllaaxira moom bari nañu léegi nag ba ma weddee loolu maa ngi topp sama yoonu bàyyi ya bàyyi ya mooy kan mooy ibrahima ishaq ak yanqub nañ ko waxoon alal alal ba ji passé sa baay sa baay la sa baayu baay sa baay la mi ngi noonu naka noonu sa doom sa doom la sa doomu doom sa doom la loolu moo tax mu ne sama bàyyi ya ibrahima ishaq ak yanqub mu ne ñun de yellul ci ñun ñuy jaamu di ànd ak yàlla dara loolu nag ngëneelu yàlla la ci ñun waaye ngëneelu yàlla la ci nit ñi la am kay mooy la ëpp ci nit ñi duñu sant yàlla te mbokk wallahi ngëneelu yàlla la ci nit ñi mooy doomu aadama yi nga gëm ne yow yàlla rek ay sa borom nga gore ci kanamu ñépp da ngay gis na bokkul la ki nga xam ne dafa jàpp ne keneen ku dul yàlla mën na koo lor keneen ku dul yàlla mën na koo jëriñ su ko defee nga yaakaar kii yaakaar kii ragal kii ragal kii amma doomu aadama bu tedd bi mooy ki nga xam ne mooy ki am tawxid kii rek mooy ki nga xam ne moo am al amn kii rek mooy ki nga xam ne moo am ah la nga xam ne mooy tranquillité moom la yonent yàlla yuusufa di wax insha allah ci bind bi nga xam ni dañ koy nar a jël bu dee ne yàlla subhanahu wa taala dajale waat ñu fi loolee kon mbokk dañuy doyloo loolu tey ci épisode yi ba nga xamee ne bu ñu fi dajawaatee nag fekk ne yuusufa alayhi salaam dana firi gént ga ak firi gént googee lan la ko nar a jural ni ngi noonu muñ nga ko yàlla mayoon yal na yàlla may ñu ko may ko sunu njaboot ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw ñeenti xale yi yonent bi sallallahu sallam wax ne wax nañ ci berceau ki ci jëkkoon mooy saaxibu yusuf boobu nga xam ni moom la yàlla waxloo mu atte yusuf alayhi salaam keneen ki mooy ki nga xam ne mooy daan defar bopp firawna benn jigéen di maachitatu firawna dafa gëmoon yonent yàlla Muusa léegi firawna menacé ko xam ngeen firawna moo rey soxnaam firawna menacé ko na ko dama lay rey benn bis mu yeew ko fi mu ko yeew mu jël benn doomam bu ndaw ne léegi boo génnul ci yàlla Muusa jaamu ma damay rendi xale bi sa kaw ndaw si tiit lool ba nara sax wax li li neex firawna xale bi na ko yaay muñal bàyyi ko mu rey ma li nga nekk muy dëgg yàlla danañuy boole aljanna firawna rey ko mi ngi noonu ñetteel bi mooy ku ñu wax jureej jureej yi tamit benn labbe la woon boo xam ne da doon beru di jaamu yàlla yaay ji dikkal ko ay yoon di ko woo heure bu koy woo fekk mi ngi ci naafi la mu ne waaw ndax damay wuyu sama yaay wala damay continuer samay naafila xelam may ko dina continuer naafila wuyuwul yaay ji yaay ji ñaanal ko na ko yàlla na la jigéen fitnaal loolu it effectivement am na fitna bu ko dal ndax benn jigéen bu saay-saay dem na benn sàmm ëmbal ko léegi bi ko famille ne ko ku la ëmbal mu ne juree ji labbe ba moo ma ëmbal gaa yi jóge ci dëkk ba ak seeni yat ñëw rek dajji mbaar mi mu defaroon di ca jaamoo yàlla daal di koy génne njaalookat bi ndekete yaa ngi nekk fi naan da ngay jaamu yàlla dajale da dogale jigéen ñi rek mooy sa ite jure ji ne leen noo lan la ñu ne ko yaa ëmbal ndaw si ba mu am doom bi dañ lay rey mu ne waaw man de d'accord naa ngeen rey ma waaye ndax du ngeen ma may ma julli ñaari rakka ñu ne ko ah kay ñu may ko mu julli mu ne waaw du ngeen ma woon xale bi ñu woon ko xale bi mu teg loxoom ci xale bi ne ko waaw xale bi yow kuy sa baay xale bi ne sàmm bay sàmm fële mooy sama baay dégg nga waa dëkk bi yépp commencé ko foo nag yépp kër kër kër ala kulli xaal ci noonu la ñeenteel bi nag mooy Isa ibn Maryam nga xam ne moom yàlla wax ne ci bi kon mooy ka nekkoon ci Yusufa ka Firawna rayoon ak saahibu Jurayj ak Isa ibn Maryam sallallahu alayhi wa sallam waaw incha allah su dee ni mbokk yi amuñu ci beneen luñ doon laaj ci xissa boobu bismillah naam loolu suñ loolu suñ magi caamin rek ñoo koy wax naan soxna dajowoon ak yuusufa ba ñuy daggee seeni loxo yi moo tax loxo doomu aadama am ay traître waaye amuloon ay traître loolu bi ñuy gone daan nañ ko dégg waaye kon kay loxo càmmoñ bi rek waroon am ay traître loxo day jarul am traître loolee kon suñ mag ñi rek ñoo ko daan wax waaye traître moom jiitu woon na ba yàlla bindee doomu aadama ba tey mook traître yooyu ñoo ànd mi ngi noonu di marku borom bi subhanahu wa taala ci ay mbindaa fanam wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam jur ko fekkee moom moom moom jigéen ñi rek la woo waaye jëkkër jëkkay nee woon na yuusufa du muyul ci lii ne ndaw si yow def nga bàkkaar jéggulul sa bàkkaar boobee waaye tamit xam ngeen pexe jigéen lu rëy la moo tax mënu ko seen pexe rëy na ca lay dëggal jëkkër ji ne pexe jigéen lu rëy la gis ngeen nam nam raxase deram ci kanamu jigéen ñi dëkk ba mooy fexe ne leen ba invité leen dugal leen ci loo xam ne ñoom sax dagg nañ seeni loxo waaye kay loolu moom jëkkëram yéegu ko loolu muy wone ni jigéen yàgg naa def ci biir këram loo xam ne jëkkëram yéegu ko ñu noonu wallahi da ngay gis ne loolu lu yàgg lu yàgg am la mooy jabar jabar bu la ko yàlla nattoo wallahi mën na def ci sa biir kër loo xam ne ku la ko waxoon da nga waat juróom-ñaar fukki waat ne loolu amut mi ngi noonu loolo looloo tax ba donte na jëkkër ji waxoon na ko ne jéggulul sa bàkkaar ci tooñkat yi nga bokk waaye teewul mu daal di invité jigéen ñi ba daal di def loolu mu def wallahu subhanahu wa taala alam xam xam-xami lislaam yépp dañ ko araamal loolu foo ko gis rek ay film la yoo xam ne ña koy def duñu ay julit waaw wala boog duñ julit ñu xam mais bépp julit bu déggal borom xam-xam yonent yàlla yi dañuy araamal ñu leen di nataal ci ay film ndax ku ne xam ne ne acteur dafay am nekk ci dëkk bi ñëpp xam ko tey ji xoolal suñ théâtre kat yi ñàkk solo yi ñàkk fayda yi ci télévision bi ku ci jëloon yoru statut ne yow yaay représenté masalan yonent yàlla Moussa wala suñu yonent Muhammad alayhi salatu wasalaam koo xam ne bu ko neexee fii léegi ne mooy yonent yàlla ëllëg ñu gis ko fële mooy njaalookat bi mooy agresseur bi ndax loolu baax na abadan loolu tax kenn d'accord ci hatta sahabatul kiram sax hatta sahabatul kiram sax borom xam-xam yi d'accord ñu ñu leen di représenter ca film donte ne boo gisoon film boobu la messager gis nañ ñu ne ñëpp lañ ci représenter ay Hamza ak ay yu kenn xamul yooyu yeneen ci bàyyi salaam rek la ñuy bañee représenter waaye hatta sahabatul kiram borom xam-xam yi dañu ne kenn wur leen représenter ci ay acteur ci ay film mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal film bi buñ ne film yonenti diw la mooy histoire ba am na xanaa kay problème bi mooy nañ koy présenté ndax dëppoo na cent pour cent ak na réalité ba amee loolee fa fa lay wuutee boo xoolee lu mel ni film boobu ñu tuddee les dix commandements soo ko dëppalee ak alxuraan da ngay gis ay juyoo yu rëy rëy rëy am na ca da ngay gis ne benn film buñ ci génne woon ci Isa na Mariam film bi dañ ko wutal sax ab gel boo xam ne Isa moom lay àndal ba gis ngeen église chrétienne yëngatu bu mag boo xam ne di yëngatu nañ ko ci loolee kon li ñuy wax daal moo di ne ne film bi des fois mu am loo xam ne ni day safaanoo day mel ne film boobu la messager da ngay gis ne bokk na yonent bi muy ñëw Madina jigéen ñaang ñëpp a génn ñuy tëgg tala al badru alayna min saniyatil wada wajaba shukr alayna loolee da ngay gis ne dañ ne wérul ci sunna ka nga xamee ne nii moo ko def accordé ko muy tantawi boobu ku mel ne Cheikh Nasiruddin Albani nee na xataa moom bi ñu na ko lettre woon ko ne lii ngeen def ci film bi jaaduwul am na ñu bëri ñoo xam ne ci loolu la ñuy daliloo ci ni musique dagan na donte ne ko daliloo ci loolu ni musique dagan na bu la neexee ngeen a sàngara dagan na ndax yonent bi alayhi salaam mi ngi ñëw Madina boobu nit ñaa ngi naan sàngara ala kulli xaal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam subhanaka allahum bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu